maintenant su ma jëlee pàcc boobu ma teg ko ci ci ci angle de traitement bi damay jël beneen angle de traitement aussi. Mhm. boo xam ni damay def le constat que malheureusement le monde a toujours évolué ci ci des combats. Mhm. des séries de combats. Mm. mais des séries de combats ak ñiy mëne combats yi ak seen façon de nanu kaa mënee. Mhm. am na koo xam ni joxe na fa ay exemples yoo xam ni moom pour man si mooy les meilleurs exemples yi ñu am ci àdduna bi sunu maam Xaadim Mandela. néewu euh, Gandhi euh, Martin Luther King mhm. euh, bëri nañu ah ñoo xam ni ba ci mère Teresa ba ci abbé Pierre ñoo xam ni seen seen façon de de de de dire non mhm. dafa dem ci ci ñoom seen personalité ni ñu mel ak ni ñu gëm après nag am ñeneen ñoo xam ne aussi am nañ beneen façon bu noo xeexee maintenant la question c'est lan moo tax xeexeñ yi wute loolu aussi question la mm. su ma jëlee le cas de ce qui s'est passé euh, au mois de mars 2021 au-delà du constat à faire que il y a eu des perte en vie humaine damay dem ci cause bi comment on a fait après li ñu dund 2011 2012 pour la foofu mhm. loolu loolu loolu tey jii nii attention ñii kat dañ leen a faat bavure policière wala dafa am ñeneen ñu dugg ci biir affaire bi def loolu lu mu ci mënti doon suñu ko feeñalee bu ñu paree après dañ naan waa léegi and what léegi léegi réglé nañ problème boobu léegi nañ fexe ba bu mu amati léegi nan la ñuy def ba du amati kon dangay dellu si cause ba boo delloo si cause ba nga ne loolu amoon moo waraloon lii kon nañ fexe ba loolu amoon bu mu amati léegi loolu amoon nag lan la ñu ne ah attention dafa am koo xam ni dañ dafa def dañ ko jiiñ dara mu génn woote xale yi topp nañ ko génn nañu musiba am na kon kooku bu mu defati loolu ñu ne ok yow kooku bu wooteeti ci lu ñu mel di faagaagal doomu jàmbur da nga wax bi après ñu ne waa léegi lañ ko jiiñ lan la ñu ne ah lañ ko jiiñ kat moom nee na complot la état bee koy xeex am ñu taxaw daal ne déedéet moom na dem ci yoon yoon leeral ka mm-hmm. da wax bi mm-hmm. léegi waa ji ne waaw dinaa dem ci yoon yoon leeral ko waa ji fa muy demee ci yoon ñu gis man ma nekk Sénégal gis ne yoon bi jubut de am na lu dëng de jaarul ni mu war a jaar parce que bu jaaree ni mu war a jaar du am problème quand on parle de justice ainsi. en quelque la procédure tegul woon ci yoon ci lu bare c'est-à-dire tey jii nii la li indi question politique bi moo di ne euh, l'élimination par stratégie ou stratagème. parce que dafa am précédent. d' politique. Mm-hmm. dafa am précédent. Mm-hmm. Khalifa Abacar Sall Karim Meïssa Wade ak keneen ak keneen soo teewee Karim Meïssa Wade bàyyi vingt quatre personnes yu ñu désigné xam nga monsieur Ba kenn désigné wu ko. Mm-hmm. kilifa bi kenn désigné wu mais am na ñu ñu désigné léegi ñi ñu désigné yow boo leen téye parce que dañoo nekk ci yow téye keneen rek injustice dugg. quel que soit le droit défini prédéfini nu ñu ko expliquer yoon lii la wax et cetera parce que la justice sénégalaise souvent bu may déglu ci Sénégal lu bare lu bare bare dañu kaa wax ci wàllu xam-xam mais xam-xam bi toujours dafay tënku ci contenant ba li ñu téye Pape Ndiaye par exemple en garde à vue toujours boo dégloo wax bi ca contenant ba la lu tax mu tudd ñi nu mu leen tuddee est-ce que xam nañ ni ñuy fonctionner ca mode de fonctionnement justice ba mais dans le fond dans le fond la nit ñi di incriminer te sénégalais yu bëri di ko incriminer loolu la ñu war a lijjanti mooy comment faire pour que la justice sénégalaise tëddee njaaxaanaay su tëddee njaaxaanaay yu bëri mën naa ñàkk li xew mois de mars 2021 pour man loolu loolu li tax mu am sax du woon yoon déjà mais waruñu woon àgg foofu suñu jëloon les devants mm-hmm. mënoon nañ fexe ba ba du ñu ñàkk suñu ay euh, mbokk noonu. surtout ay xale yu ndaw ay xale yu ndaw du ñu àgg man j'ai l'image de benn policier agent bu ma gis mu tiré ci benn xale cette image là mais resté après dama ne mais pourquoi au non de quoi ñu agsi ñu agsi bu ñu demee ci cause bi rek dinañu am solution ci problème.